cey bu pënd ba wuree turbine yéen kaay naan maan ca ngeen di xam ne dëgg daal mooy njëkk mooy mujj xam nga kàcc moom bu jëlee ascenseur dëgg daal di jël yoonu escalier yàgg-yàgg ñooy daje ca porox ndool la ga daal di jàkkaarloo te dëgg fa mu mënti mujj mooy daal di mën turbine yéen kaay naan maan xam nga xel mënta nangu ñu ne la tey jii ci mim réew ak say toog fichier électoral beeg yëpp tege naa ko na le ma ne la réewum senegal rek ñu taxaw ne la Amadou Ba ñetti million jàpp juróom-ñaari téeméeri junniy parrainage am na ko ngir Benno Bokk Yaakaar loolee di firnde ne Amadou moo gën a siiw président Macky Sall Amadou ëpp doole président Macky Sall Amadou mën président Macky Sall du dëgg yéen kaayib dee média bi naan kon daanaka ñeenti million gu parrainage yii xel mën na caa teey te bu ca teey def dëgg dut man na caa am te bu ca amee defub dëgg mim réew ma ni la ku ne la Amadou Ba man na fee gën a siiw président Macky Sall ëppale ko ay parrainage gën ko nekk ci xoluk senegal yi du dëgg critique yéen kaay ne ko déet xam nga Amadou la Sall ngaari lam tooro dundul woon 2012 lay dund 2024 ña nga kay gatandu di ko karkaraatoo moom Amadou waa partem ñoo ngi koy dunduloo daanaka jahannama di ko sot sotoo di ko def ab barrage amadu moom toog ci ru xam ni cell candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi ma la mënta sax imposer boppam te fi mu ne waa biir partem ci boppam dañoo tiit ci tabb gin tabb amadu ba ndax aatu mama ma ni la Amadou mii mën naa këpp seenug yelwaan vox populi mel ni ku naan kon xanaa bu ci président Macky Sall jàppul ndax démb nag député yi nga xam ne ñoo nekk ci assemblée nationale daal dinañuy sot sotoo maître Sidiki Kaba ba maar day taali naan kon Sidiki Kaba mënoo nekk ministre de l'intérieur intérieur bokk APR bëgg tëggi élection Ayib Daffé Abbas Fall ak Bara Gueye daal di sotoo maître Sidiki Kaba ne ko dañoo ragal daal bés boo tëggee élection yi la nga xam ni moom la APR bëgg nga def ko la opposition bëgg nga daal di tàbbal géej moom sii di naan leen déet élection yi nar a tëgg ci mim réew de dana jaar yoon dana leer te lépp loo xam ne bàyyeekoon na ci urne yi daañu ko respecté vox populi naan man maître Khoureychi Ba ma nga naan leen xel daal teey na xam nga xel mënta nangu fii ci réewum Sénégal ñu fitnaal leen tiital leen ba li nga xam ne moom la ñu a ràngoo ci wàllu politique ñu daal di koy ragal maître Khoureychi ba naan Sénégal fi mu na dañoo fitnaal seeni ndaw loolu nag mooy dëgg turbine yéen a kaay naan kon fitnaal baykat yi baykat yaa ngi mer ba maar day taali ndax kilo gerte gi njëg gi nga xam ne am na ko ci réewum Sénégal waxtu woowu l'observateur naan man médecin yi ñoom ña ngay teex teex may ree daal dinañuy réussir daal di defalu broñoo koo xam ne dafa amoon wopp ja yoxaan yi ni du wan médecin chef directrice bu hôpital militaire bu Wakaam nee na réussir bi juróom ci ay couple ñi ngi xaar ñu jébbal leen ay roño te loolee ngir mu am daanaka fukki million di nga ko joxe ci mim réew l'évidence yéen kaay naan man bugaan géy dan yi ma ngay rafet looti moom géy naan wopp roño gi nga xam ne daanaka ñi ngi ci yoon ngir daal di koy jële ci réewum Sénégal daal rafetlu na ko exploit bi nga xam ne docteur daal nañ koy def ci réew mi bugaan géy danee njiital gëm sa bopp ne maa ngi koy rafetlu te faaw nag ñu saytuwaat def ay action yu concrète mën a joyanti wér-gu-yaram ci réewum Sénégal le mandat yéen kaay naan kon ma ngay félicité médecins yu Sénégal di félicité professeur Alain Ndoye bu hôpital Aristide Le Dantec waaye tam équipe bam bokk na ci nag médecin militaires yi tribune yéene kaay naan konté bugaan man ca rax naan leen ñam leen ma yéen réewum Sénégal xam nga fi mu ne maa ngi sar xolle di lu la nga xam ne ab jéego la te médecin yu Sénégal gii def ko te bés bu ngeen ma ñamee daal di may fal ci mim réew man bugaan gay dani nee naa leen ñi nga xam ne dañoo am woppuk roño waaye tam ñi nga xam ne dañoo am jabet seen faj gi duñu fay dara ci mim réew yoor yoor naan kon ci wàllu politique moom bugaan gay dani daal ma ngay simpi waa bennoo bokk yaakaar ca kumpentum bi def na effet yéen kaay bi naan maan waa bennoo ngay fàq di roñ-roñi fu ngeen jëm waa bennoo naan leen xanaa fekki Bougane Gueye Dany mi nga xam ne ëllëgu politique ci loxoom la tegu ci réew mi direct news naan maan boobu président Macky Sall daal ma ngay defalu frein bitey bëgg-bëgg askan wi ci waa Sénélec moom président ki Sall matale na ko Oumy Ndour ak i gaayam soobu woon ci xeex ci facture yoo xam ni cher na waaye tam woyofal goo xam ne jéggi na dayoo moom Sall ne leen jël leen la ngeen bëggoon matale naa ko troisième tranche jeex na ci mim réew ñëppay tolloole yéen kaay bi naan maan Sall dafa xool xelam fàttaliku la nga xam ne amoon na ci jamonoy Abdoulaye Wade mooy fitna yoo xam ne courant bee ko woon laaj ba moom moo di nag waa Senelec ci boppam du ñu fay courant loolee nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo nu mu leen neexee fayuñu ko ci mim réew kan nag moo koy daal di gàddu la Sénégal gàddu fi mu ne moom moo di nattal gafa jëwrin yi tribune yéene kaay naan man Sidiki Kaba ni ki démb ñaari téeméeri fanweer ak juróom-ñaar ci milliards am na ko tribune sport naan kon Lat Diop ñu daal di koy yokkal fukk ak ñeenti milliards ci budget critique yéene kaay naan kon terewul day kan gi ci réewum Sénégal boo maytul ñu ñàkk ko te demagun ca fa yàllaaxu fi mu toll nii ma ni la xeexoo gu rëy moo am diggante Lat Diop ministre des sports ak njiital fédération sénégalaise bu football muy Augustin Senghor l'observateur boobu naan opposition bi xool leen seen bopp wala yéene kaay bi naan leen la may xeeñ ci yéen neexul lee fa yéene kaay naan kon moo taxit Sall yebe na leen nu ne Sall daal ma nga yor ay xeeram di leen jor naan leen nu toog waxtaan dialogue mayewul ci mim réew gaw ma ni fitna ak xët xët na ko maye réew mi ko naan kon niki démb ci forum bi nga xam ne jàmm ak dal bëgg ci Afrique la ko doon waxee moom président Macky Sall di daal di àttu ñi nga xam ne dañuy def ay coup d'état naan leen Afrique fi mu toll nii soxla nag moppalu Le Soleil yéene kaay naan kon sanctuaire bu yees bu Marial bu Popenguine dees na ko dalloo fii ci suñum réew Sénégal yéene kaay bi naan man premier ministre bu Pape bi daal dina gane si moom it Sénégal war a juróom-ñeenti fan ci weeru décembre sanctuaire bu yees bi war a waxtaan waaye tam war a amal ay liggéey ak jàngu bi ci réewum Sénégal L'Observateur naan man Sénégal fii la tollu de ab bébé la ñu fekk ca Matam ca àll ba mu daal di faatu yaram yëpp ñu daal di koy daggati dagatee daggate ba maar day taali yéeni kaay bi naan maan doxantul ba Thiès waa jii di doomub sëriñ ab coroom dib mineur moo ko xamal ne dafa ëmb waa ji dal di koy xoj ba ndaw si daal di faatu ci ay loxoom ak lu mën a am mbokk yu ñuy ñaan jàmm yendoog jàmm tey moytu sa marché Petersen euh, nee nañ bi deux heures du matin jotee ba léegi euh, sa lakk ga daal di tàmbali kenn xamagul lan moo ko sooke du ñàkk nag daañ ci dikkaat su ne nañ jotaay yu euh, xibaar ñu waxtaan waxtaanee njiitu réew mi président Macky Sall daanaka na mu ngi sàkku ak dal ak dal ci réew Afrique yi ndax coup d'état yi sakkan na lool en tout cas dama euh, ko gisee dafa gis ne kon loolee mënta wéy faw nag ñu def ak taxaw seetlu weer ngànnaay yi waxtaan suñu biir njiitu réew mi président Macky Sall mu ngi ko xamle ci ubbi teg juróom-ñeenteelu forum international bu Dakar ñu jagleel ko wàllum kaaraange geex jàmm ji ci réew Afrique yi euh, moom jot na faa yëkkati ay kàddu moom njiitu réew président Macky Sall ci centre de euh, centre international conférence bu Abdou Diouf bu Diamniadio ñu teew ay kàddoom daal di dikkaat. je sais pas ce qui se passe xamuma li sunu mbokki militaires yi xewle. mais nangeen wax ak ñoom. Afrique dafa soxla jël pause tuuti ngir mën a liggéey pour développement mënuñu saa yu ñu xëyee ñu ñuy wax ay militaires yu fippu nangu ay base wala ñu naan dañuy libérer ay prisonniers mënuñu développer Afrique ci anam yooyu. te su weesoo nit ñi ciy loru ak yàq-yàq yu bëri yi xare yi conflit armé yi. dafay tënk lépp lu ñu doon jéem ngir développer koom-koom ngir développer koom ak suqali doomu aadama yi rax ci dolli dafay diisal bor bi ndax saa yoo waxee ñu naan la yéen ak seeni coup ak yooye nu ñuy investir ci seeni réew lu métti la ci ñun lu métti la rawatina saa yoo waree leb xaalis faaw njiitu Afrique yi toog ak soldaar si nekk ci bopp yenn réew yi lii mënul wéy. ça peut pas si ndaje moomee la ñuy desandi laata ñu koy waxtaanee ñeenti téeméer ci ay participants daanaka dikk nañu ci forum international boobee ñu waxtaanee wàllum jàmm ji ak kaaraange gi bokk na ci personnalité fa teew njiitu réew bu Mauritanie Mouhamadou Ould El Ghazouani tomba moo di Afrique ak potentiel yi ci am solution bi ñu war a wut ngir kaaraange gi daal di fii sax kàddu yi njiitu réew président Macky Sall ba tey ci forum bi ñu teewlu ko. les règles et pratiques anam yi ñuy jëflante ci wàllu koom dafay gën a loolu mooy dëgg tax na ba ñu war a seetaat ni ñuy jëflantee ñu fexe ba muy gën a leer jëflante gu yemale ak bu méngoo jamono may fàttali ne ci li ñu gën a yitteel bokk na ci benn ñu yeesal conseil de sécurité des nations unies monsieur le président yaa ngi ko doon fàttali sànq dool itam yeesal anam yi koom-koomu àdduna bi bindoo ak institution yu Bretton Woods mel ni Fonds monétaire international ak banque mondiale ay institution la yu am solo yu ñu jëlee ci deuxième guerre mondiale waaye faw ñu méngoo ak di doxale jamono ñaareel bi ñu yeesal maanaam ñu réviser OCDE ngir ñu mën a jot ci crédit yi xoolaatam diir gi ñu ñu may ngir mën a fay bor yi. et sur les périodes de remboursement. dialogue waxtaan suñu biir ngir jàmm daal di sax en tout cas loolu mooy fu njiitu réew mi ci euh, li nga xam ne moom la ñu doon waxtaanee sànq ci coup d'état yi mais également dikkaat na ci wàllum bor bi ak financement yi. waaw bor bi souvent moom mooy gën a indil Afrique problème. parce que mhm. réew boo développé wul. nga bëgg investir ci loo xam ne xëy na moo lay suqali amoo koom googee da nga koy wuti feneen te gars yi du ñëw dimbali lal ci neen wala bu ñu la dimbalee fii nangoo ko fee yow nag boo bëggee dem lebi mais taux yu diis lañ lay tegal Sénégal a ngi fay ay bor depuis xaw ma ñaata at. Mhm. ñu ngi jëm ci peut-être pétrole wala gaz ndax xëy na bor boobu dina mëte ou mais tey jii à travers le monde dafa bëriwul sax réew mu amul bor mais bor dafa am bor yu jaadu ak bor yoo xam ne jaaduwut ci li ñu am ci expérience. mooy peut-être la ngay mën a jël ci bor investir ko ci ay infrastructure de développement mais bu dee da ngay leb pour pour puuxare wala mbuumbaay def yëfi àddina wala jeune ne sais pas train de vie ak yooyu je pense que phase boobu la ñu war a mën a dépasser di dugg ci phase boo xam ne peut-être ci lay nit ñi di gën a gis seen bopp parce que y des investissements de prestige yoo xam ne à la limite souvent on te dit même que soxlawuñ ko mais nag Afrique dafa toll foo xam ne dañoo war a mën a rëcc ci noot gi nga xam ne yenn institution yu mag yi comme banque mondiale euh, euh, fonds monétaire international ñu ñu koy teg te pour l'instant mënuñu ci dara parce que justement il faut que mu am ay réformes il faut que ñu joxaat Afrique place bi nga xam ne moom la war ci biir koomu Afrique euh, ci biir koomu àdduna bi parce que réew yu bëri tey jii li ñu soxla ci seeni réew mais Afrique lañ koy jëlee te pourtant Afrique bokk na ci continent yi gën a ndóol loolu nag moom mënul continuer dafa mënut a continuer donc il faut ay réformes justement ci wàllu koom mais ñun tamit ñun bu ñu amee suñu koomu bopp rawatina suñuy dirigeants yi yor ñu dénk la réew ñu dénk la alalu askan wi fexeel ba yor ko yorin wu rafet c'est ce qu'on appelle la bon guvernance parce que ñaari yi ñoo ànd ay réformes fii mais également yow nga réformer sa bopp ba de sorte que bu ñu la joxee alal dénk la ko yow nga mën cee liggéey te sa loxo du ci takk ci lenn duñ la joxoñ baaraamu tuuma mais malheureusement Afrique ay détournement ngay dégg wala ay situation yoo xam ne sànq ñu ngi ko doon évoqué ak coup d'état yi ay chef yoo xam ne seeni njaboot dañuy exposé alal yoo xam ne sans kenn xamul fuñ ko teg fuñ ko jëlee mais au moment où yaa ci biir sa askan ñoo xam ne bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu ndekkee du ñu añ amaana sax ndekkiwu ñu añu ñu reer la ñuy taaba taaba wala añ bi ñu négocier ko après mu ndekkee euh, reer loolu moo mënul continuer donc bon gouvernance dafa ànd ak ay réformes monétaires yoo xam ne à travers le monde moom la ñu war a mën a def pour Afrique mën a justement fekki ci yeneen i niveau réew yi nga xam ne aujourd'hui c'est les pays développés mais tànk loolu amul alal dina nekk ci biir Afrique ñun duñ ko jëriñoo ñeneen ñoo koy jëriñoo ñun luñ ca am benn portion bu ndaw ci askan wi les dirigeants ak peut-être ñi leen jege ñoom ñoo koy pasar pasare après mu yem foofu loolu nag dafa war a jeex ma mbay ba ñaagan ngay def elaaj ci euh, waxtaan wi nga xam ne njiitu réew président Macky Sall mu ngi koy sàkku ak bor yi nga xam ne ñu ngi koy am ak solution yi ñu bëgg ñu apporter ko ci foqalewu nguur gi daal bu jeexee rek bu hmm. limi du pouvoir fii ci Afrique comme ni ko Europe ak États-Unis grande démocratie ni ñu koy defee bis bu demee ba toll foofu coup d'état moom gëm nañ ne place soldats yi ca caserne yi la chaque jour nit ñi fàttali leen ko mais léeg-léeg coup d'état day am ci dëkk Mambay nga gis population bi yëpp génn ak soldats yi. Mm-hmm. di jubilé te ça devait être le contraire coup d'état dafa waroon am ñëpp toog ci nen. ci benn ñaar soldats yi dañuy coup d'état mais doo gis kenn ku manifester ci mbedd mi ne leen delloo leen nguur gi na transition bi dugg. Mm-hmm. mais est-ce que gis nga dëkk yi nekk fii nii si si nos voisins là kan moo ci def coup d'état ba pare joxe waat tàmbalil ci yaay jàmm ci suuf. ba li xew fii fii fii actuellement nii nii dañ naan la transition bi waaw dix huit mois moins de deux ans wala deux ans vingt quatre mois mais dañu toog continuer ba pare ñu bëree bëree bëri ñoo xam ne da leen di jàppale bu ñu leen coup d'état yi am lu la naqari dugg na fi gën a fi dafa fekk soldat yi commencé guñ opération delloo euh, goxi mais koo ci dugg ci salle de bi mais nan la nit di dencee lu tollook ay mais xam nga lan mooy milliard milliard mille millions junni ci million du noonu mais yow nga yor ci lu tollook ñaar fukk si sa biir salle de ñi nga xam ne dañ leen mujjee daaneel nii yëpp soldats yi dañuy filmer keesu xaalis yi nga xam ne moom foofu nag moom lañ teg mais yow seen yow yow africain bi nga xam ne da nga doon dimbali ñi ne non coup d'état bi moom du yoon les militaires là leur place sont les casernes mais da nga naan mais c'est pas vrai dangay ngay tiit yéemu ci yàlla parce que da nga naan lii nan la mën a nekkee nan la mën a nekkee soldats yi nit ñi mujj génn ànd ak ñoom mais nag. du du du du kii de euh, du du dara justifié wu. dara justifié ko. coup d'état le général Cissé ñu organiser woon élection yi dañ ko invité woon RTS su ma juumulee TGP la woon émission bu bi ñu ko laajee ci ay affaire du coup d'état xam nga la wax ne leen comment un coup xam nga yaay jàmme coup d'état am na ku ko ku ko doon def. ku ko doon mm-hmm. coup d'état am ñu commencé woon di jubiler. affaire bi mooy ñu bëree bëri naa non dafa waroon a jàll ndax léegi-léegi général bi bi ñu ko laajee mu ne leen je ne vais pas dire que c'est un mal nécessaire parce que un coup comment il peut être bon dañ ne coup d'état mhm. kurpeñ ci gémmiñ nan la mën a baaxee ak nag lu ki nga jàkkaar loolu lu mën a def ci àdduna coup d'état moom la nit mënu la justifier mhm. nit mënu ko justifier mais nos leaders là aussi kay moo dafa fa na toog ci alalu askan wi non seulement joxoo leen ko mais aussi sa mandat jeex yow nga taxaw def comme li xew gine nga ne du ma fi jóge mais am na président yu def lu gën a garaawlu jaar assemblée nationale pour voter lu ab loi ne président à vie. Mmh. mais à vie. te yow tu as été élu démocratiquement par un peuple souverain yow nga xëy benn journée leen léegi sax dematoo. soldats yi wër la mais benn wala ñaari soldaar yoo xam ne bokkuñ ci li nga def. Mm-hmm. ñooñu ñooy fippu. indi coup d'état te gis nga yàlla nañu yàlla musal ci coup d'état. yàlla nañu si yàlla musal même bu ñu indiwaatee lii civil. yow ci nen rek ngay toog Adama Barrow mi ngi ni soldaaru sénégalais yi est ce que xam nga ne ba léegi nii ñoo nekk Gambie. xel mi du dal à chaque fois. non non est ñoo fa nekk ba léegi. soldaaru sénégalais yi ak ñenn ci waa CEDEAO. Mm-hmm. ba mission CEDEAO bi jeexee kenn xamul ba 1900. te terewul ña nga fa ba léegi. ba léegi nii laa la wax buñ ma waxee buñ ma laajee ma jox leen tur temps yi rek am na sama benn bokk boo xamante ni ma nga woon mi mi ngi woon gàmbi xam nga loolu lan moo ko réalisé parce que coup d'état moo fa xas a jaar. stabilité da ngay mel ni xob firi la lu yëngu nga yaakaar ni affaire bi moo. dëgg baa yëngu te pourtant dañ koo fal ci ay élection mu nekk un mais coup d'état bi fa xas a jaar. moo tax moo tax xel mënatul dal ci moom te mënatul dal ci gambien yi illaa yu ngi yàlla nu ci yàlla musal. allahumma amiin mi présent Macky Sall kon nag moom euh, mu yëkkati yooyu la kaddu kaddu yooyee Younoussa Baldé moo ko taataan forum international bu dakaar la ñu fay waxtaane kon wàllum kaaraange jàmm ji ci réew Afrique daanaka tey jii lañu koy euh, ndar kepp Cheikh Tidiane Gadio bokk na si ñi nga xam ne ñoo taxawal forum international de Dakar sur la paix la sécurité boobee tey jii bokk na si ñi samp seen dënd ngir doon euh, candidat wala am nam xemmemteef bi moom mi fi nekkoon ministre bu ñu dénk mbiri biti réew tàng bi fi Abdoulaye Wade di jiite moom ci boppam euh, bokkoon na it jamono ji ci ña nga xam ne peut-être am nañu xemmemteefu samp seen nënd dafa gis ne euh, nit ñuy doxalee wàllum parrainage bi daal daanaka xel teey na sa lool ku si nekk di fële fu la neex di joxe seen chiffre naan matal naa daanaka loolee xel teey na am na lu làqu ca ginnaaw te faw ñu lijjanti ko Cheikh Tidiane Gadio ay kàddu yu mu dénk ba Badara Sonko parrainage lu war la. pour que élection yi ñu bañ am li ñu am fii li ñu wax cirque xam nga luy cirque da dem seetaan yi gars yi di def yu am sens yu amul sens ñii di ree ñii di tëb ci kaw ak yooyu loolu mooy cirque deux cent soixante ci réew mi dix huit millions d' euh, dafa dafa doy waar donc il faut parrainage mais parrainage gouvernement bi ci boppam moo war a njëkk respecter principe parenage mais gis nañu ñuy jënd parrainage yore seen ay mallette cinq mille francs carte dentité identité loolu dafa ruslu gis nañu ay nit yu naan ñun am nañ 3 millions de parrainage ak 2 millions 3 millions yu kenn xamul yow ñu laaj la 60 000 58 000 xaw ma ñaata ngay dem wuti ay 3 millions donc loolu mooy pour tere ñeneen ñi ñu mën a bokk ci parrainage bi loolu nag loolu rafetul démocratie bi ñu fi taxaw Ablaye Wade ñoom ñëpp combat yi ñu mëne lii dellu ginnaaw la boo gisee parenage wu ren yi ni ñu ko doxalee dafa ruslu wàllum parrainage yooyee xam ngeen ne kon euh, coow li bari na si njaw di desu xam ndax nak ku si nekk yaa ngi euh, siwal say chiffre di wax ne kon ñii nee nañ matal nañu ñii ne kon ña nga ca terrain ba ba léegi am ñoo xam ne nañ matal nañu ba liste dañ koy bàyyeex ña sa des ani loolee lan lañ si jublu tontu li yaax Fatou Abdou Ndiaye ay fana ngi nii euh, tutaskatu xibaar yi di fësal limuk parrain yi nga xam ne candidat yi élection présidentielle yi amee nañu ko mu mel na sax lu ñu dippee guerre des chiffres ci diggante yooyu candidat quand bu nekk di fësal li nga xam ne moom la jot a dajale coalition Benno Bokk Yaakaar Dakar ña ngay tàccu ne nee nañu am nañu lu ëpp ci ñetti million ci ay parrain coalition yi nga xam ne ñoo fare ci kubile politique yi kenn ku ci nekk yaa ngi wax li nga amee njiitu gëm sa bopp moom nee na lépp loo xam ne matuwaay ak jumtuwaay jël na ko ba tax na lu toll ci ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer superviseur ak facilitateur am nañu ko ci région yi nekk ci réewu Sénégal yépp lañ ca jublu lenn képp la muy am lu toll ci benn million ci ay parrain euh, parti bii woon di Pastef nag moom daat na investir Bassirou Diomaye Faye benn ay bés boobu ak léegi terrain bi ñu fës ca lool wax nañu sax ne ëppal nañu lu tollook lim ga nga xam ne moom lañ leen di laaj ci parrain noonu it la mel ci ñeneen ñoo xamante ñu ngi ci kujje politique gi ku ci mel ne Serigne Boub ba ci Déthié Fall mi wax ne moom matal na ba tëji keesam yeneen it ci ay kàngam yi bokk ci yeewi askan wi am nañu lu ëpp la nga xam ne moom lañ leen doon laaj loolu mel nag ngir wax ne xeex bi nga xam ne moo dox ci chiffres yi daanaka tàmbali na ci diggante way politique yi lan lañ ca kon mooy laaj bi nga xam ne askan wi bëgg nañoo xam lu mu ci mën ci doon kenn ku nekk mën naa xam ne parrainage yi moom ak li ne mooy fichier électoral yi li ci nekk daanaka lu jóge juróom-ñetti la ci ay électeurs. Mamadou Fofana li ñuy wax nañ ku si nekk moom nga am boo ko dajalee ëpp na fichier bi. <laughs> oui mais bon xam nga politique la aussi xam nga mënoo ne gaañu nañ leen dem parrainage opposition bi nangu ko et puis ku ci nekk aussi day dem ak stratégie am. Mhm. maintenant li ci gën a am solo moom mooy xam nga parrainage Cheikh Tidiane Gadio wax na ko sànq. nee na mënoon am na solo. mais modalité opératoire yi moom mooy poser problème. Mm -hmm. et c'est justement à ce niveau là le CEDEAO waxoon ne Sénégal il faut ngeen xoolaat lu jëm ci wàllum parrainage bi tey bu ñu ko xeexoon peut-être du ñu yegsi fii ni ñu yegsi mais boo xoolee ba ci biir xeex ba ca waroon a am pour justement ñëpp mun a dem en chance égale par rapport ak li nga xam ne moo jëm ci wàllum élection bu mu mënti doon poser na problème tey jii nii. nguur gi bu génnee ay chiffres am joxe vous pensez que c'est c'est dañ ko def noonu rek mais c'est fait à dessein génnewuñu trois millions pour teg ko keneen génnewul trois millions pour teg ko parce que ku ci nekk yaa ngi jéem a dox ci maaynu opinion publique bi parce que aussi après ay résultats moom moo ciy toppee après élection bi maintenant nan ngay justifier résultat résultats maintenant nan nga war a mën a taxawee pour taxaw ne man kat de lii mais loolu moom mooy joxe explication tey ku ci nekk di yëngal ay chiffres ne lii laa am lee laa am maintenant 18 millions de sénégalais nañ ça il faudrait pas l'oublier le fichier c'est 7 millions kan ak kan mooy parrainé est-ce que c'est l'électeur moom mooy parrainé wala le détenteur de carte d'identité parce que il y a deux choses am na ñoo xam te ni ils sont pas électeurs et pourtant dañuy parrainer kon donc boo ko defee boo xoolee def calcul bi da nga naan dix-huit millions de sénégalais yi les treize millions wala les quatorze million mën nañ parrainer kon donc da ngay gis ne ne ku ci nekk chiffre am yi muy génne peut-être valablement mun nga jàpp ne ne loolu war na ko mën a am mais au finish xam la mooy wax lii lépp bu ñu xeexoon wàllum parrainage mu leer parce que opposition bi wax jee fi ne mais am na ci yoo xam ne maîtriser wuñ ko ci parrainage bi ba léegi. Mhm. et foofu noonu moom mooy poser di problème ëllëg ndaxte bu ñu demee ñu éliminer leen après lan ngay wax parce que am na ci lu bëri loo xam te ne nii peut-être maîtriser woo ko loolu nag moom mooy indi boo gisee gars yi di indi yenn chiffres yi woy matal naa bàyyi. da nga naan kii est-ce que réellement xam na lan mooy enjeu wu tey jii nii parrainage bi parce que bu fekkee ne ne yow rang benn ñaareel ba tirage au sort la boo nekkee cinquième wala sixième nit ñi jiitu la mais doublon yooyu foo koy lijjantee moo tax bu nit nee taxaw ne woy euh, man matale naa damay bàyyi ñeneen ñi ñu kii mais loolu xel mënu ko nangu pour un exercice à la fois aussi complexe difficile et compliqué. Mm-hmm. beneen bi Cheikh Tidiane Gadio wax na ko mais opposition bi mënuñ euh, plutôt pouvoir bi mënuñu ko reprocher woy dafa defi ji euh, parenage parce que ñoom nangu nañ ko mais bu nangoo dès lors ñoom nangu nañ parrainage. bu ko neexee mu xool sur le parrainage citoyen bu ko neexee mu xool la le parrainage des élus parce que ñoom ñoo nangu ces règles de jeu là donc amatuñ li ñu leen war a mën a kii maintenant li ci am solo mooy ku nekk demal nga def le travail qu'il faut sur le terrain parce que au-delà des sept région yu ñu lay laaj bu nekk deux mille mais li xel gën a nangu mooy fu ñu la laajee deux mille utal cinq mille sept régions nañ la laaj utal quatorze régions et liggéey boobu noonu ci peux pas le faire en temps record ba ci cëppaandaw nga jàppal ni da nga war a uti parrain pour justement multiplier tes chances pour mun a bokk ci présidentielle voilà El Hadj euh, euh, lii moom communication la bu nga xam ne moo moom la ñu nemmeeku ci politique wala euh, ku si nekk sa stratégie boo teg la rek bu dee stratégie la tam baaxul gis nga député yooyu nga xam ne temps kii temps yàggee hmm. suñ ne ne wii bu ñu ne noo ngeen ne noo hmm. ngay am na ñoo xam ne ñu ngi assemblée yënguwuñ ci yooyu man de ci ñu laa bëgg a bokk député du peuple et non député benn nit. benn parti keroog ba ñuy wax affaire u parrainage j'étais le seul ci cent députés cinq voté yu vote les Yewwi avaient voté abstention Pastef pur ak député Aïda Mbodj bi ak député Déthié ak député euh, euh, euh, Habib Sy j'étais le seul. contre bi ko président bi waxee benn nit moo yëkkati lii moom moo taxoon dama bañ loolu moo ne am assemblée nationale ñuy voté ñu ñu ñu ne groupe bi ne lan la ñuy voté ñu ne nangam ñu waxtaan ci ba pare. oui mais parrainage ma ne jamais duma ko voté bu boo waa yeewu yépp après après après mere ma benn ñun espace CEDEAO lañ bokk mënuñu lu ñu décider lu CEDEAO décider Macky Sall ne problème de souveraineté. faxas ko dindi fële aw moom moo ne nañ leen fi dindi wàllum parrainage léegi ñin ñu bëgg a ñëw wax Macky Sall ne ko d'accord d'accord ci li CEDEAO wax wala ñun dañuy suñu yoon nekku ci du ma ko def dama voté man contre li groupe parlementaire Yewwi Askan Wi def parce que ñëpp waroon a voté contre le le le parrainage mais parrainage ma mbay mooy rek pour Macky Sall mën a éliminer ñi ak éliminer ñi amuñu benn machine technique boo xam ni moom lañ naan doublon yi lii. am na foo xam ne ci fiche fiche yi xam lan lañ fa bind autre autre motif autre motif lan la rejet dañ lay wax doublon déglu ma wax la wax la ne da ngaa manqué wax la ne la 60 la ñuy laaj 62 kon da nga ëppal comme li daloon Mimi ci élection député yi mhm. mais am na fu ñu bind autre motif fu conseil constitutionnel bindee autre motif bindal la 6000 e quelque 6000 yoo xam ne baaxul bindal la autre motif autre motif bi lan la kenn xamagul ah dara leeru dara yow mën nga matal yëpp ba pare ba baax ba pare ñu dindi la lu tolloog 5000 bindil la autre motif autre motif boo xam ni conseil constitutionnel du ko détaillé da ko war a détaillé ne la autre motif yi nag. lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii. loolu moom moo moom moo moom moo ko waral mais kantaan ak di joxe ay chiffres xam nga jaaxaan di tuur ndox loolu nax sa bopp la. <laughs> li ñu wax léegi nii Mamadou Fofana mi ngi doon vérifié waat léegi nii résultat yi. Mm-hmm. fii ne ñii dañu amoon un million cinq cent ci ay nit ñu leen voté. xanaa Macky Sall kon ci diggante bi dafa convaincre beneen un million cinq cent de sénégalais gis nga foofa am na fu ñuy bind euh, euh, carte ne numéro carte électeur ku pare ne électeur ga déggoo ma de mais xanaa kon dafa convaincre un million cinq cent de nit ma mbay mhm. ñun daw nañ sept ans géejawaay parrainage du caaxaan mhm. su dee yow da nga ne da nga bëgg lu wóor da ngay jël ay nit ñoo xam ne leer na leen ni Simon mii ci man la bokk du mës a parrainer keneen nga bind ko ñun li ñuy jox Malick Gakou déglu si expliqué la matul dix mille. li ngeen ko jox. nu Géejawaay laa bokk matul dix mille pare mu leer na la ni ñii yow say militant lañ Malick Gakou mën na compter ci ñii ñii waa gëm sa bopp lañ Bougane Gueye Dany mën na compter ci Mambay compter ci Ahmed Aïdara. compter ci mhm. Simon compter ci Fofana compter ci kii ak kii. dix yii dix yu wóor moo gën ñu jóoral la lu tolloog trois mille yoo xam ne yow maîtriser woo leen dañu waxante dëgg. ci may ay trois millions. kii waa Benno 3 millions. Simon euh, mën ngeen xaar ay doublons yu bari de. non doublons yu bari ñu gis nii. du doublons yu bari looloo foofu lañ jëm. foofu na wax na ko sànq il faut rappeler le principe du tirage au sort. Mhm. ñii jiitu amaana ñoom ñooy euh, euh, ëpp chance parce que à ce rythme. Cheikh Tidiane Gadio wax na ko yow ñu laaj la nangam yow ngay dem ba ci ay xaw xawma 3 millions mais après. et même ci biir trois millions yooyu tey jii dangay ngay dajeek ñenn ci mbedd mi nga laaj leen mais ñoom. dañ leen xam nga xam nga ñun tam ci biir koñ yi moom xam nga amet mënul mu ñëw ci man ma xaw ko rus. waaw dama koy signal. te hmm. pourtant leer na ma leer ne signal naa Mamadou Fofana. Hmm. loolu day am ci biir koñ yi loolu nañ ko sóoraale. Hmm. donc finalement ñu bëri man ragal naa tame bi téye leen mais xam nga lii nii yëpp chiffres yi ñuy joxe c'est juste de la communication politique Ahmed wax na ko. c'est juste de la communication politique parce que da ngay da ngay da ngay yaakaar ne boo affiché chiffre bi dañu ne ah kii kat moom nangam nangam après nit ñi peut-être féete sa bor mais les gens risquent de se tromper lourdement parce que mbooloo du électeur waaw mobiliser fu mu nekk nii loolu uh-huh. gis nga tendance bi dañ ko waroon a la mm-hmm. caution d'abord moom lañ doon wax déglu après le retrait mm-hmm. mm-hmm. gis nga suñ ko defoon doo am lu tolloog dix candidats. lii yëpp kenn du ko gis. dañoo waroon a jiital caution bi ne da ngay joxe trente millions. Mm. Mm. présidentielle c'est du sérieux da ngay ñëw joxe trente millions ñu jox la sa benn kitis nga jubali. nga dem nga jubali intérieur. loolu baamoon baamoon waaw mais est que seetlu nga benn affaire. deux cent deux cent cinquante et quelques candidats. am na ñoo xam ni keroog ba ñu jëlee seen fiche. ba ba mm. wu ci seen page Facebook. si la je candidat. keroog lañ leen gëj gis. si loolu lañ gëj a gis. mu ngoog dem assemblée nationale si moo ah, ñu waxtaanee kon euh, démb jëruñu denk biir réew mi ma doon jàkkaarloo euh, député yi dikkaat nañ ci ponk yu bari jot nañ ko fa waxtaanee euh, élection yi nanu koy organiser wàllum mbëkk mi nu ñu def ba daal di téye ndaw ñi fii ci réewum Sénégal Sidiki Kaba moom su mu jàkkaarloo député yi jot na défendre budget 2024 am ñu xayma ko ci 237 milliards 231 millions autorisation d' engagement sa la bokk milliards 4 moo di crédit de paiement ñu ànd Cheikh Adjaratou Aïcha Gning Mohamed Diaw pencum ndaw réew mi Béthiné Diambetam jàkkaarloo ak ministre de l'intérieur. onze chefs de division yoo xam ne. dañu moroom chef de division même grade même tout ëppale nañ leen quatre cent mille francs gën saa néew ma ne la lu waral xaj ak seen boobu. boo jëlee si li nga xam ne mooy passeport yi. Sénégal yëpp dañoo am ay jafe-jafe ci mbirum passeport yi bari na. ministre de l'intérieur Sidiki Kaba indi na ci ay tontu. un nombre de plus en plus important de Sénégalais qui votent le passeport nous sommes en train d'y remédier. lu jëm ci organisation élection présidentielle yu ñu dëkkmal. luy laaj foofu yan disposition ngeen jël pour la sécurisation des candidats primo votants yi nga xamante ne si dañu inscrire woon en deux mille vingt deux depuis lors ils peinent à recevoir leur pièce d'identité en tout cas nañu war ci dàmm war ci dal ku war a dem dem ku war a toog toog ñuy war ci jàmm. nit ñi bu ñu voté. le dimanche le lundi ñu xëy dem liggéeyi. vous n'avez pas la légitimité d'organiser ces élections pourquoi parce que monsieur le ministre da ngaa far. tontu bi li ci indi moom ministre de l'intérieur. ce qui sort du bureau de vote ça qui est le verdict des urnes et cela cela respecté. le budget 2024 bu ministère de l'intérieur voté nañ ko ci majorité député ya fa teew ci assemblée nationale. Euh, l'intérieur jàppale ni it euh, député yi sëgg nañu ci budget ministère bi ñu dénk wàllum tàggat yaram ba milliards yu toftal millions si suñuy koppar la ko rek daal autorisation d' engagement milliards millions crédit de paiement euh, par rapport ak dañoo gis nag yokkute da tey am ci milliards la Diop défendre na kon budget bu département wam te nag nee dana def kéem kattan bu a taxawal benn système sportif bu accessible bu performant minutes ñu ànd Seex Sadia bi bu ka Babacar Mar lu weesu gunge bi ñuy amal ci équipe nationale bu Sénégal ngir mu jëli beneen coupe d'Afrique yokkuteeg budget bi li ko waral bokk na ci infrastructure yu bëri yi nga xamante ne war nañ koo defaraat. bëri yoo xam ne dañ ko sumb notamment euh, ré ré réfection stade yu mel ni ay Ely Manel Fall stade yu mel ni Léopold Sédar Senghor Iba Mar Diop yooyu yëpp nga xam ne day am ay contrepartie yoo xam ne euh, parfois même bu ci bailleurs yi dugalee seen loxo état bi da am loo xam ne da koy war donc loolu moo gën a indi yokkute gi. bu noppee loolu ñu teg ca beneen projet. mais toutes les disciplines ne peuvent pas être la même manière. nu ñu toppatewoo discipline yëpp mënul yem parce que kenn ku nekk ak dayo ba nga am ak la nga indil koom-koom bu Sénégal loolu réalité la mënuñ ko fee dindi waaye nag dinañ jéem. et bien traité. ñu yàgg ko wax ne dafay gënale football ci yeneen discipline yi ministre bi moom lii la ca tontu. bu ñu paree ci loolu ñu former nit ñi nga xamante ni ñoo ci nekk ñetti yëf yooyu laa wax ni moom moo war a nekk bandoulière bi moom moo war a nekk li nga xamante ni dañ ci war a liggéey bés bu set ba keroog sport Sénégal ci discipline yëpp doon loolu dem fu kawe kawe. ci noonee jëwriñ bi ñu dénk wàllum tàggat yaram di laat Diop xamal na ne fii ak ay weer dinañu taxawal li ñu duppee office national buy ngànk infrastructure sportive yi li ko waral moo di li état bi tabax ñu tàmbali ko rentabiliser maanaam commencé di ci fayeeku Sadia Bibouka Daouda Dia ministre bi ñu dénk wàllum euh, élevage ak production animale moom mujjee jàll démb si kanamu député yi budget bu département am ñu ngi ko xayma ci quarante cinq milliards deux cent quatre vingt millions autorisation d' engagement ak nag quarante milliards deux cent quatre vingt millions crédit de paiement mu am yokkute gu ñu si nemmeeku bu onze milliards yu tegal as lëf boo koy méngaleex bu deux mille vingt trois tey jii suba nag ñoom député yi fas yéene sëgg ci budget bu ministère bi ñu denk wàllum mbay mi équipement rural souveraineté alimentaire euh, dénk wàllum napp mi économie maritime waaye it euh, euh, ministère bi ñu dénk wàllum jigéen ñi euh, tamit daan jàkkaarloo li nga xam ne moom mooy député yi muy bi ñu dénk njaboot geex tout tànk yi ñu fas yéene ñoom it défendre seenub budget ñu waxtaanee kon xeexum caxat-caxatee gi ñu nemmeeku ci euh, suuf gi ak dogot dogot gi bureau bu association des maires du Sénégal dañu amal ab ndaje euh, ci diwaanu Ndakaaru atelier de formation la ñu jagleel ko maire yi ngir nag ñu mën a xool nees mën a def ba joxem suuf si lépp mën a aw ci yoon te coow bañ see amati ñu ànd seex Tidiane Diallo Germaine Dior mu ngoog Tidiane euh, Diallo Germaine Dior bu fekkee jàppandi na euh, muy ndaje ba nga xam ne association des maire du Sénégal ñoom ñoo ko woote euh, monsieur le maire jëm ci suuf si nañu koy caxat caxatee ñu ne nag kon nañ koy waxtaane daakaar naa ne lu am solo la. waaw xam nga mbirum suuf si moom dëkk bi moom tout est politisé ñun moom suñu suñu cas ba léegi nii le maire est waaw indésirable ci dossier boo xam ni du d'ouvrage bi c'est la ville de Guédiawaye bi Macky Sall signé le décret ba tey enfin ñun de bi ñëwee ba léegi amul fu ñu dew demul amul fu ñu dawul mais ba léegi nii tey suba ginnaaw suba lu jëm nag ci wàllum bu limi foncière bi moom yaakaar naa ne loolu moom li li li li li sonal population bi loolu bokk na ci ay nit ñoo xam ne ñoom ñooy toog fu ñu toog di accaparer ay suufu jàmbur man problème mu suuf heure yi dañ ko waroon a dépassé Simon. Simon Tidiane Diallo Germaine Diop ci reportage bi. benn plan d'action lañu fas yéene teg ngir xeex anam yi ñu caxa-caxatee suuf si waa bureau bu association des maires du Sénégal amal nañu tey benn atelier ci cadre boobule ngir tàggaat élus locaux yi